mbokk ñuy seetaan ci MPROD TV si Abdoulaye Faye le marabout milliardaire génnewaat na valeur 60 millions def ko ay social mu nekk ay pañe ak ay lekk yoo xamante ni mu ngi koy joxe ci daara yi jëmee ko ci weeru koor gi danañ leen koo tegal gis nañ artiste bii di ñànku ak Manoumbé ñëw seet si ko dinaa ko laaj lan mooy seen relation am na nag ñu taxaw ne ko sëñ bi est jotul nga posé candidat nekk président 2024 ngir lu baax li ngay jëf diggante Sonko ak mag Sall danañ ci leeral ndax génn nañ ci 4 avril waaye gis ngeen li xewaat ci ginnaaw sëñ Ablaye fay la marabu milliardaire dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xoos dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëñ bi ñoo lay ziar. ñu ngi lay dolli ziar di leen baalo ak si weeru koor gi. di leen ziar di leen baalo ak waa adduna bi yëpp. waa Sénégal yëpp. sama client yi ak ñi nga xam xam nan ma ak ñi nga xam xaw ma ma ku nekk maa ngi lay ku képp koo xam ne jàkkaarloo nga man rek maa ngi lay jéglu di la di la ziar di la baalu ak si wér koor gi. Mm-hmm. di nuyu Serigne Mountakha bi nga xam ne encore moo fi teewal murit yàlla na ko yàlla yàggal fi ko te wéral ko. Mm-hmm. di nuyu Serigne Mbaye mi nga xam ne moo ñu teewal ñi nga xam ne ñu tijaan yi. Mm-hmm. moo di ko ziar di ko ñaanal gudd fan ak wér ak Serigne Mountakha Mbacké ñoom ñëpp. ba si laay ñaseen ba si si suñu mbokk chrétien yi nga xam ne ñu ngi suñu weer ñoo bokk bés weer yi ñoo duggante di la ñaanal koor jàmm ak wërsëg wërsëg yu yaatu ak déplacement bi nga xam ne déplacé nga ñëw nga ñëw seet si ma. Euh, sëñ Ablaye tey yàlla dénk na la xam-xam bu yaatu ba yaa ngi ñaan muy nangu nit ñi jëflante ak yow yaa ngi fexe ba alal ak xaalis yomb leen. nga ne ma man bokkuma ci ñi nga xamante ni dañuy fitnaal nit ñi man li may def mooy ñaanal la alal yomb la nga teral sa yaay teral say baay mais yemu ci loolu da nga cee boole du social valeur 60 millions nga génnee yii nga jox ko sëriñ daara yi. ñu dépassons ko yii nga yeggale ci li nga xamante ni mooy yenn jumaa yi nga xamante ni yeggul woon waaye yii nga jënd ci li nga xamante ni moom mooy ay grossesse ay pañe di ko joxe ñu seetaan pañe yooyu di gàtt yeggale émission bi. Eh, nekkul ci ñun nga ko njëkkee nekkul ci ñun la koy mujjee moom day dox ci social di def ay teraanga di dimbali artistes aadama yi ak néew gi doole yi comme moom fan ak wér parce que yéene sàmmanteeg ak moom kóllëre gudd sax dàkk bay daa yow yi ndaxte lii dafa rëy na ko ci weeru koor <laughs> loolu ko yàlla <laughs> ma ndaxte nee nee na moom xaritam laa euh, a baax euh, di ko ñaanal lu mu man euh, ren déwén yàlla na gën a yokk. amiin yal na yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla. amiin am na ay nit yoo xam ne. Mhm. li ñu bëgg su ko yàlla defee rek. ñëpp dañuy am jàmm. amiin seen yéene mooy nit ñi di am jàmm di am nit ñi di am teraanga. amiin te moom foofu la taxawee. di ko ñaanal yàlla guddal fanam. amiin amiin yokk ko ci barke yi ci barke weeru koor di fasante moom kóllëre mm. sax bu ma la seetaanee sama xol dafa dafa sedd. incha allah rabi ma ni a am fu mu la féete yow ak man lu mu demee. jërëjëf yàlla yéen ñaar dina am lu mu féete te incha allah rabi man moom comme ni ma ko kenn xamuma ay euh, wax ay caaxaan. wax muy dañ wax wax ko. <laughs> yàlla xam ne dinaa li ma mën. Mhm. dama koy def. lu ma mënul dama ko def. dëgg la bu tur du tax ngay wut lay def loo xam ne. Euh, ku mel ne Ouzin Keita daaw ak ñoom Pawlish fa nga jaaroon ak ñoom mais ren nga jël ku mel ne ma ñumbee ak ki nga xamante ni moom mooy ñànku euh, ñànku moom 100 francs rek la bëgg <laughs> mais li nga ko jox muy paje bi moom ëpp na tamit yaakaar naa lu am solo la. waaw xam nga njànku sax boo xoolee yàlla def na sax sànq rek mu may wax mu wax dafa bëgg ñëwaat ma ko ñëwal yow sama wara nga sama xarit nga ma xam nga tey. Hmm. artistes yi si ñun la bokk. te xam nga ku wax artiste. Hmm. xam nga ni moom ñi koy topp. Hmm. muy ay famille. ay famille dañ koy topp mm-hmm. néew doole yi dañ koy topp mm-hmm. ay waa këram dañuy soxla mm-hmm. moo tax ma jël pañe boo bu nekk bu jar quarante mille quarante euh, ma jox leen ko comme ni ma ko defoon Pawlish Mbaye ak Ousin buñ fi ñëwee sama kër ma jox leen ñoom it artistes bu ñu ñëwee dama leen que joxe joxe ay artistes yi baax ci ñoom parce que comme ni ma la ko seen dépasse day fort day day metti kon bu nu amee koo xam ne dañuy jox ay pañe ñoom it mën nañ ci dox ba ci kanam loolu moo ko waral ma def ko Mhm. parce que comme lu ma la ko waxee xam nga yàlla def na comme lu ma la ko waxee lu mel ni euh, tey li nga xam ne mooy xew si jamono mel ni Macky Sall ak Sonko. Mhm. Macky Sall si boppam sa boppam si boppam. Mhm. dafa war a dem si osa yi. dem si euh, escroisise mooy bi nga xam ne moom laa demoon. dem foo jënd ay pañe. jël jël valeur soixante mille wala lu ko ëpp comme ni ma ko defee. jël loolu jëm yóbbu ko Fatick. yóbbu ko si koñam. di ko séddale. li mel ni Sonko moom it moom it mi nga xam ne encore moo fi nekk. moom it bu ko laajee fekk yoru ko yorugu ko sax mais bu ko laajee si ay ay taalibeeyam ñi nga xam ne doon koo bëgg. dalañ ko jox moom mu jël loolu. ba dëgg yàlla mu jël loolu dem jënd yu pañe yu menn yooyu yu bari yooyu. ñu 60 millions wala lu ko ëpp mu jox ko cité kër góor gi. bu ko defee foofu ak ñeneen nga xam ne ku ko def xamal ni ku ko def booy xëcc réew mi da nga jël de. kon réew mi ci social lay mujjee. man maa la ko wax social lay mujjee képp ku dakkul sa def social doo jël réew mi. ki la dakk def social ki la dakk dimbal nit ñi mooy mooy jël réew mi. Mhm. billaay wallaay man maa la ko wax de dëgg daaj yaa ngi fi maa ngi fi ndax su ko ko def wala wala jëm ko kenn ku si ëppale def moo ko moo koy jël. fekkee Sonko sax ni ñu wax moom amagul xaalis parce jëlagul réew mais am na ay nit. <laughs> mais na ko def. bu ko defee man loolu laa xam. Mm-hmm. le ni Matar Ba. Mm-hmm. ministre. moom mu def noonu. Mm-hmm. le mel ni ah, kii ah, ministre Aly Ngouille Ndiaye. moom mu def noonu. le mel ni ki nga xam ne moo nekk Thiès nu mu tudd sax mooy ki waa kii mooy. ay Idrissa Seck fa Déthié Fall ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu def loolu. gis nga weer koor gi képp ku mu raw. si social xamal ne après ay jafe-jafe ngay ngay ngay ngay laa la weer koor bii mooy tëj. mooy mooy presque mooy mooy mooy mujj si weer 2023 bi. jàpp vingt 2024. képp ku si bëgg am teraanga. Mhm. képp ku si bëgg am wërsëg. képp ku si bëgg am tera milliard. Mhm. képp ku si bëgg am nguur. Mhm. boo defee social bu yëba nga toog nga xam ne doo gañe kon doole yi jot na. dimbali néew doole yi moo jot jamono jamono weer bi weer dimbali euh, lii euh, néew doole yi la képp ku si def mooy comme lu ma ko ministre yi ma yimal yëpp ba si procureur yi ba si ñi nga xam ne mooy juge yi ba si ñi nga xam ne mooy avocat yi bàyyi ma kenn pour fi ma koy ñëkkee mooy wax naa la ko mooy si Macky Sall laa ko ñëkkee teg si Ousmane Sonko bu ko defee an ko daal bu ko defee bu yaatoo képp mooy jàmm réew mi man comme nu nga waxee sànq wax nga ñu bari day wax Ablaye fa lan moo tax du du du du du posé candidat man nekk président man doyuma ko dara. Ah. bëggu nekk président bëgguma ko. am na ay milliards. Mm-hmm. kon lan laa ko doy maa ngi jàppale néew doole yi maa ngi jàppale ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi kon lan laa koy doxee man kay li mu am kay mooy essan li mu am jël ko di ko def ci askan bi parce que xam nga ni askan bi wéer bii dafa metti te xam nga ni doo nekk ci ci crise boo xam ne dafa wër adduna bi yëpp te xam nga ni ñi nga xam ne dañ lay jox euh, li pañe yi dañ ko dañ koy yelloo loolu man loolu laa xam te képp koo xam ne nekk na ci moom man moom laa lay digal ku koy def doo ñàkk alal. gis nga képp koo xam ne boo jëlee li nga gën a bëgg parce que xam nga pañe yi moom xam nga dafa riis pañe bu nekk quarante mille lay jar yu mag yooyu. Mm-hmm. te dañu am dina am lépp. dina am meew. dina am tàndarma. Mm-hmm. dina am suukar dina am dina am euh, café. dina am jus dina am lépp te lu mm-hmm. bari lay doon lépp loo xam ne dina la mën a dawal weer bi ba mu dee. te encore du ma fu yam. Uh-huh. comme naa yeneen yoo xam ne encore dama koy yóbbu si yeneen dëkk yi mel ni yeneen dëkk yi xam nga wax naa la chaque année si Dakar laa koy ñekke dem Thiès dem Tivaouane dem Louga dem côté yëpp. comme naa yeneen encore yoo xam ne ñu ngi ñëw. parce que <laughs> jour oh. mu bu ma demee escorigis. yaa ngi ko ñu comme ni nga ko gaa yi gisee. vidéo yooyu di dayo jën naa yooyu yëpp ramassé yëpp ba mu jeex ba mu manqué. Mm. damaa kon comment yeneen. Mm. kon dëgg daaj. lépp lu ma mun a xamal mais képp koo xam ne yaa ngi def social rek xamal ni doo ko ñàkk. loolu moo war a Ablaye fay bu amee client boo xam ne dafa nekk bugg nekk multimilliardaire boo ko ñaanee mu yomb parce que li may selal ay xol nit. est-ce que xam nga ni ñooñ di la ñaana ñaan boobu rek ñaan boobu day dem ba day day damay dal ba dal sama ay doom del dal sama ay sët dal sama ay mbokk dal ñi nga xam ne ñoo nekk sama wet sax. dem ba dal ñi ñi nga xam ne ñoo may seetaan dem ba dal ñi nga xam sama ay client la. ñaan xol bu sedd. Mm-hmm. lan moo waral lan moo waral tey tey boo xoolee li li di li li murid yi mm-hmm. lan moo waral chaque année mu gën a yokk parce que ñaam yi ñuy joxe. dem ko Tiwaawoon chaque année mu gën a yokk wala laay wa ñase ñi liñ joxe la. Mm-hmm. est-ce que xam nga kiy joxe ñam. wala kiy joxe lekk wala kiy def social. chaque année da koy gin a am fekkoon xam nga daaw 20 millions laa defoon. te ñaat laa def. day beneen beneen beneen weer bu ñëwee beneen at bu ñëwee comme comme lii bu ñëwee lan laa ko mën a waay sax beneen weer tam lii euh, weer. Euh, koor bu ñëwee. day yokkaat rek noonu lay def noonu lay def ba ba ba ba lii moo tax nit du def lu baax bu pare di si arrière wala di si ñàkk. amul kenn ku koy def lu baax na si am lu bon. sëñ Abdoulaye fay alal am na ñoo xamante ni bu ñu sañoon nee nañ kenn du leen may dañu amal seen bopp. Mm-hmm. wërsëg yomb leen. Mm-hmm. ci côté ñaan côté musique. Mm-hmm. gis naa ne ñu bëree bëri yaa leen di ñaanal ba alal ak wërsëg yomb leen tey ki bëgg am alal te ñaan yàlla rek la bëgg mu may ko ko nit kookee fooy jaar ak moom. fu ma jaal mooy fu ma jaale gars yi rek ñi may jox deux milliards cinq cent millions. jox nañ ma ko fi. yow gis nga ko. ñi nga xam ne dañ may jox un milliard gis nga ko. ñi may jox trente millions gis nga ñi may jox soixante millions jox ñi nga jox mais boo amee ay junni junni doomu aadama yu mel ni waa Louga yi. ma am fa ay taalibe yu ay junni junni. nekk ay milliardaire mm-hmm. nekk Europe. nga nga demaat jëlleeru mm-hmm. nga demaat ñoomare nga jëmaat waa jëlleer si la waa ah? ah nga jógee foofu demaat ba si Tayba Tayba yi mm-hmm. nga Saalum Saalum yi lu mel ni Touba wala leen feneen wax ma nag Dakar ak faatu faatu yi mais yooyu ñëpp ñëpp ñëpp bu ñaan leen ñëpp ni nekk minti milliardaire lan la def ba Ablaye Faye du nekk minti milliardaire lan wax ni dëgg ah, lan lañ def ba instant bu génne 60 millions wala 20 millions 30 millions bu ko génne lan la koy wàññi affaire bi loolu la en tout cas la képp koo xam ne ni sa wërsëg nekk nga si nga taxaw juróom-ñeent bunt il faut nga taxaw juróom-ñeent bunt nag ba fa taxee juróom-ñeent bunt wërsëg mu tomme ak sa li may lay wax si kàttu yàlla fekkee ay milliardaire nga doon am na koo xam ne dama koo ma wax ma rek wax ma rek wax ma Sénégal de mhm. dafa rom Afrique ba dem bi laal tubaab yi di dimbali tubaab yi am na koo xam ne am na koo xam ne mu ngi États-Unis ñuy nekk France dama leen defal lu alal boo xam ne mhm. tubaab yi nekk seen wete dañ leen jàppale ba ñoom di ko tooñ di wax Afrique terroriste xam ah, nga nu ko mën a wax sax. terroriste mooy ku ku africain benn africain boo xam ne dafa gris am na nu mu ko waxee daal. Ah, terroriste voilà nu mu ko waxee. kon koo xam ne euh, tubaab yi dañuy jëm ci moom. mu leen jàppale. di leen dimbali te pourtant africain la. dem bay jàppale ay tubaab. dem bay jënd ay foofu ay kër. lu mel ne Europe wala lu mel ne foofu ngay jënd ay kër. di jënd ay ay ay ay alal lu bari. di jënd ay con di wut ay conteneur di ko yónnee. billaay wallaay kooku secret boobu dama koo jox kon sama secret alal bi ma bi li ma lay defar rek du yam si du yam si sa bopp rek. Hmm. ba ba kopp koo xam ne dafa nekk sa wet rek mun nga ko wallaale. xam wax ma comme dafa comme li ma lay jox. Hmm. bis ba kii nekk sa sax day amaale alal. kon affaire bi dafa nekk lu fort. Hmm. macha allah loo xam ne yàlla moo ni ko jox. yàlla rek moo ko jox du mbindeef yàlla moo koy dogal ñun mënu dara lépp yàlla la. mais yàlla moom suñu su mi nga xam ne juru kenn kenn juru ko te moom rek moo fi nekk te moo fi yàlla bu jëlee li mu yor jox la ko da ngay am par force kenn mun ta fee doon mais bu wax Ablaye fay de wax dëgg yàlla ah dem naa si yeneen maara yi wax na ma dina am alal dina am teram mais ma dara kon Ablaye Faye bu ma waxee du ma gis dara nee ah. déet dem nga noonu de dangay ngay làmb ba keroog nga daje ki lay ñaanal ah. wërsëg yi yamuñu de comme ni nga ko waxee sànq kii war a nekk président. Uh-huh. ak ki war a nekk ministre gis nga ministre boo xasee ba nekk ministre rek am nga wóor seeg nekk président. xam nga comprendre ko bu poste boo boo xam ne am nga poste boo nekk ministre xamal ni am nga poste am nga yoon bu nekk président war gi noonu lay defee directeur encore parce que directeur mooy parce que adjoint man man wax naa la ñu nekk si waa Macky Sall yëpp laa xam adjoint yeeg directeur yeeg ministre yeeg yàlla def na man wax dëgg yàlla nekkuma di leen lim mais ñoom ñoo may woo parce que xam na fu may jaale ay nit li ma yor ñoom si boppam xam na man li ma yor du caaxaan waa kay xam na du caaxaan parce que leer ndama ma tey lu fekkoon lii naxay naxay mbaay la lu ñu ko waxee. Mhm. du ma am ay kër yu bari. dëgg la naxay mbaay du yàgg nii. yàgg nii. dëgg fekkee li may def fekkee naxay mbaay la woon. Mhm. kon billaahi wala wa taalaahi ñu bëri gën nañ wax ne lekk naa seen xaalis. mais du naxay mbaay. Mhm. mais xanaa yàkkamti am dafa am il faut mu wax ko fii. dafa am nit ñoo xam ne doonoo yàkkamti da nga leen dañu bëgg ñëw léegi léegi tey tey mu sotti léegi léegi affaire bi demee noonu. dëgg la yombul man li lépp man képp koo xam ne man du ma ñaan ko yàkkamti damay dama xoolal la man ku ma xasee ba xoolal nit ki. waaw seetal ko ba noppi. ba seetal ko ba noppi ba wax la yow mi di nga nekk minti milliardaire billaay wala wa taala bu bu la neexee lebal lépp bu la neexee lebal fépp xamal di nga am loo ko fayee dinga am loo yee. ba ma xasee ba xool la surtout ñi nga xam ne doonoo nekk sa juróom-ñeent bunt bu ma xasee boo waxee di nga am alal xamal ni yow mooy si kattan di nga am alal bu ma waxee doo am alal moom xamal ni da yàgg yàgg mais doo am dara moom dafa am alal si wut li ma lay jox mën na nekk mun nga ñëw tey tey mu sotti tey mm-hmm. mun nga ñëw suba mu sotti suba mm-hmm. mun nga ñëw weer mu nekk weer mm-hmm. mun nga ñëw mu nekk at mun nga ñëw mu nekk ñaar at mun nga ñëw mu nekk ñett mu nga dem a ñekk ñeent at parce que wërsëg noonu la tollee mais am na koo xam ne ki nga xam ne wërsëgam dafa gaaw mu nga ko def tey ñett fan sax mu alalam ñëw mu nga ko def sax mu weer alalam ñëw mais day fekk wërsëgam yaatu parce que dafa am nit ñoo xam ne noo lañ judduwaale wërsëg mais da da nga leen poussé rek may leen doore rek ñu ubbeeku kon képp ku la wax mun na yoon ay milliards mun na yoon alal bu bari te deful pexe nax na la waxul dëgg maara président yi ñoo la dàq ñaanlu mi euh, euh, ñi nga xam ne ñoo nekk si borom alal yi ñoo la dàq ñaanlu lu ñuy def duñ la ko wax wa am na ñoo xam ne nag ay milliardaire loo mais milliardaires yoo xam ne dañuy yor xam seen xam-xam bopp boo xam ne moom ñoom ñoo koy defal seen bopp parce que nit ku nekk am na loo xam ne lan moo war a chaque vendredi wa chaque jeudi wa chaque lundi gars yi di ray ay nag ay sarax ay yooy alalam day gën a yokk gis nga ko gis ko gis ko Seex Béthio. waaw chaque année alalam da gën a yokk. Mhm. parce deret yi muy tuur la. te tuur deret bonul araamul. ñu bari na wax ay eh, bu tuur deret am na ñoo xam ne tëj nañ seen wërsëg parce que duñ tuur deret te tuur deret dara nëkk si. man mii damay tuur ay deret tuur ay deret dara nëkk si. Mhm. parce que mala yooyu pour sunu sunu pour yàlla da ko indi pour sunu soxla. parce que mala ya mala yi muy nag yeeg xar yeeg béy yeeg gëléem yeeg yooyu yëpp pour soxla la. boo amee xew. nga ray si. boo amee ngénti ray si boo amee gàmm ray si boo amee dëj ray si. boo amee soxla boo xam ne nag mun nga ko def pour loolooy may alal loolu ubbeeku nga def ko araamul mm-hmm. ma am na ñoo xam ne dañuy wax ne ñi am rab. Mm-hmm. ku am rab moom war koo xam ne rab bi moo tax nga ray ko lool moom. baaxul parce que chaque année après rab bi wala chaque lii rab bi da koy laaj kooku nag mun nañ ko tere rey mm-hmm. mais mais boo ko teree rey bu ko teree bu ko teree ray si wërsëgam de. mu ngi teree rey si si lii wala boo koy rayal rayal ko si wërsëgam mais bu ko rayal si rab bi. mais boo ko rayal si rab bi rek chaque année wala chaque weer dala ko affaire da koy laajaat ñooñu lañ koy mais am na ñoo xam ne dama xam ne du ma rey sëriñ bi damaa tere rey mais fekk sëriñ bi ki la tere rey moo xamul sax fu muy taxaw moo lay tëj am na ñoo xam ne ray moo leen ubbi. am na parce que araamul bonul parce que da nga koy def pour soxla pour faj soxla la rek mais nekkul loo xam ne lii araam mooy nga rey nit ndax am alal mooy sacrifice yi nga xam ne gaa yi ne def wala nga rey sa doom wala nga rey sa jabar wala nga rey sa yaay wala nga des am na ñoo xam ne sa alal da leen jaral sax boo joxe seen bakkan ndey wala seen bakkan doom loolu ma bëgguma ko. loolu moom d'accord ma si. ku koy def ma da ngay torox rek yàgg boo ko amee sa alal bi mais fi ngay mujjee du baax. kon diggul ñi nga xam ne dañuy joxe seen doom sacrifice. wala di rey seen si ay nit wala def lu araam d'accord ma si boobu wax ma alal boobu alal boobu moom. doy na mais alal boo xam ne dangay def loo xam ne ay ay mel ni ay ay gëléem ak nag ak xeetu yooyu xam ne yoo xam ne diine may na loo ko loolu dara nekku si nit ki buy def loo xam ne day def lu dagan parce que mun si jaamu yàlla nga mu ngi si saraxe nga mu ngi si dimbali nit nga mu ngi si tabax ak nga mu si social mais fekk lu aram doo ko mën parce que am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne aram am na ñoo alal boobu la ñuy yor si dëkk bi moo tax doo fekk nii saraxe doo fekk nii dimbali nit wala balaa ñuy dem màkka yàlla xam mooy alal bi nga xam ne mënu dem màkka bari na fii si Sénégal am na alal yoo xam ne du dem màkka du julli mu foo fekk du ñu dimbale boo waxee puukare daal moom bu fekkee affaire saytaan li jëm saytaane. parce que alal saytaan la am. booy waxee musique nii que un million wala deux millions jox la. booy waxee juma wala daayira ni bañ. boo waxee ki feebar ni bañ boo waxee lu araam ñu jox la parce que seen alal fu ñu ko wutee fu ñu ko jëlee lu araam la kon fu araam lay dem parce que am na ñoo xam ne seen alal boobu bu ñu ko jëlee def si lu baax tamit si jàkka sax wala def si lu baax wala faj si nit wala def si social bu baax rek seen alal day dem parce que sëriñ bi si boppam ki ki nga dem moo la ko def moo lay wax alal bii nag wax dëgg mën nga si def bànneexu fépp mën mm-hmm. nga def lu araam mm-hmm. mu nga si def tëdd jigéen mën mm-hmm. nga si def lu araam mais alal bi doo def lu baax parce que boo si defee rek day dem alal boobu nag du ma ko digal du ma ko def man damay ma leen lay fa defal mooy alal bi nga xam ne da nga si mën a def lu baax julli si woor si tabax si jàkka dem si lépp nga xam ni mën nga baaxle àdduna mën nga baaxle alaaxira loolu nag mais alal yu su ëpp Sénégal koo gis du la dimbali dimbali bu bu la war a dimbali. xam après tiital sa alalam. Oh. xam nga comprendre noo comprendre parce que dañ leen koy digal dañ wax alal bi waroo see def lu baax. moo tax am na ñu bëri yoo xam ne boo doon rey fii bu boo doon sukkuraat ba fii suba sax du njëkk alal jàppale la. parce que li li li contrat bi ñu def. <laughs> parce que contrat nga ay seytaane oh. contrat nga ay iblis mm-hmm. contrat dama contrat nga ay jinne yu araam yu bon yoo xam ne kon yow lu def lu baax moom say yow mii sax da ngay dem ba dañ lay jox contrat yoo xam ne yow mii boo deewee safara nga jëm nga ni bëgg naa oh. ci yàlla yow moo da ngay xam yow mii wax dëgg yàlla sa al àdduna moom day neex mais sa àllaaxira du neex kon alal boobu jaru jaru ko mais am na ñoo xam ne dañ ko jaral ñu ngi si dëkk bi ñu ngi si àdduna dafa am ay naar yoo xam ne dañu jóge Mauritanie di ji ñëw. wala jóge feneen di ñëw wala di mais mais foofu dañuy gis naar yi ni bëri ay ransak alal bu bëri dañ lay wax seen ablaay boo boo bëggee sax boo ma laajee sax doom sax jox la. billaahi wala sama koor gi. ma ko loolu du ma ko def. ma ko yow lii seen bi lii boo ko def de bu ma waawaate. Hmm. parce que yow mën nga am alal te doo doo def lu aram. Hmm. da ngay joxe say kër. joxe say hmm. moom nag affaire bi ni koy ree ay mbokkam di ko ree di ko xas loolu nag mu jàpp ko mu ni moom sa jaral moom du jotaat alal jaame na joxe doomam moo ko noonu bu ko def mën nga am sa alal te doo joxe sa ay doom doo rey bakkan doo def lu araam kon moom tax ñi nga xam ne ñoom laay seetaal ak ñi nga xam ne encore bëgg nañ alal te te mu soxla nga alal mën nga ko am alal araamul parce que naa Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam danoo toog ji ñaan yàlla na ko yàlla ñàkk ñàkk yàlla na ko yàlla euh, musal si ñàkk kon ñàkk baaxul kon bu yàlla yàlla defee nga am alal mën nga si di nga mën a see jaam yàlla kon alal moom xam nga ne sa alal sax wax ma rek alal ba boo ko amee ñëpp dina la wuy si dina la faale te alal mooy def lépp sa courant sa dund sa lekk sa naan sa faju sa lépp lépp loo bëgg def alal moo koy def xaalis moo koy def mm-hmm. kon ku amul xaalis moom dañuy wax bokkoo kon nit ku nekk duma la xañ nga am alal duma la xañ nga wuti alal duma la xañ nga wuti mais wutin ko fu sell ak fu leer foo xam ne du la gaañ booy signé ay contrat man boo ma signé contrat contrat yoo xam ne yi si yàlla àndee moo ni seede moom laay signé mais duma la signé yoo xam ne ay seytaan yi wala ay fay seytaan lay doon parce que mooy seytaan yi mooy alal yooyu xam nga ko xam nga alal yi may wax xam nga alal yi may wax am waa dafa araam yooyu moom duma ci nangu kenn di si dem man encore képp koo xam ne dama lay ñaanal jalo nga yàqante parce que man xam ñëpp xam na ni man affaire caaxaan xoj ma si lekk sa xaalis duma ko def parce que xëy na yow xëy na yow mun nga mun na mun nañ sëkk ay ñaan nga jàpp ni nga yàkkamti ba jàpp ni dama laa nax fekk dimu noonu wala nga woo ma dooma jot damay wuy te damay wirdi di julli ay ko yow mi sa da nga may woo dooma jot kon damay julli di woor di wirdi di dugg xalwa di def affaire kon yow mi nga xam ne da nga ma lay ñaanal defal ndànk parce que am na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki ay audio yu bëri ñu ngi fi mm-hmm. jékki-jékki seen affaire dal sotti nga ne ah, alhamdulilah alal bi ñëw na maa ngi sant yàlla ba ma sama li nga ma waxoon lépp ne ñoo nag ñoo ma jox alal bi nga xam ne may moo lu tax ma am fit ay 60 millions wala lu ko ëpp di ko jox social. xamal ni damay amal lu ko ëpp te xamal ni denc naa lu ko ëpp. kon xam nga bu ma nekkoon si caaxaan. comme ni nga waxee ndax mbaay. du fi egsi du ma si ay kër kër ñaata kër laa si am. ñaata ay oto laa si am. ñaata nit laa si dimbali. ah kon bu fekkoon leer na ma instant yi nekkoon ndax mbaay du fi egsi ndax mbaay du mënu sori. am alal di nax ñi ni. ñaar nit benn nit boo ko naxee du ñaar ñëpp xamal la ni yàq sa liggéey kon man damay bëgg lépp mu tego si yoon yàkkamti bëgguma koy yàkkamti defal ndànk rek ni ñaan yàlla rek suñu borom mooy maye. mooy maye mooy nangu ma du ma yàlla duma ma yeneen mais am naa yaakaar ni. ak li nga xam ne dama ko di ko gis guddi. am naa ne xam naa ni incha allah képp koo xam ne ñëw nga ci man. bu ma la ñaanee sa aaj dina faju alhamdulilah waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV gis naa nag pro yi tamit jublu nañ la muy footballeur yeeg yenn international yi. ñu bëri say xarit lañ damay faral di gis ñu lay sant di la euh, gërëm. non parce que dafa fu ñu jaar xam nga dafa am ñoo xam ne dañu bëgg signé kayit. bëgg kayit wala signé pro wala leneen. Mm. ma jox leen jox leen ni ni signé leen. Mm-hmm. ñoo gis nga ñoom ñooy joxe alal ba ñii poro wala kayit wala ko am na kayit am na koo xam ne day toog 30 ans wala 40 ans mënu jot kayit nga defal ko benn affaire kayitam jot mais am na koo xam ne da nga koy wax mu dem def ko kayit am am kayit su loolu lépp yëpp est-ce que xam nga ñaan bu nekk dafa am façon ñaan alal ñaan kayit ñaan lépp dafa am façon mais am na ñoo xam ne benn ñaan mooy dox seen lépp si loo xam ne alal la muy kayit muy teraanga muy wërsëg kenn kenn du mun si yow dara benn ñaan mën na ko def kon ñaan moom ku la wax ñaan amul dala am fekkee loolu la kay Seydina Muhammad Rasulullah ñaata yoon lañ ko liggéey te falaxi naa si moo ko ko defoon. fukki fa fukki fas ak lan ak benn. moom la heure bu taree falaxi naa si affaire di tekkee ko di tekkee ko fekkee Seydina Muhammad ni liggéey wax ma nag kenn ku wax mënul la jàpp liggéeyal dan laa dan laa liggéeyu mais amul kenn du liggéey dul jàpp fekkee ku gën si sàng yi moom la. moom la ñu liggéey jàpp ko xamal ni kon ñaan am na. xëy na da ngaa tasawul kii nga la ñaanal. loolu mu fi nekk mais bis boo tas ñin ñin man ni Ablaye Faye mi man damay ñaanlu loo xam ne mënuma ko sama bopp ma dem ñaanlu. def si ay li ma bëgg parce que du yàlla du lépp la lay jox yenn saa mu jox la loo xam ne yow mënoo ko ñaan sa bopp mais nga dem ku la yaakaar nga xam ni parce man mi gëm naa ñaan am na parce que dama koy ñaan ni ni ñuy gis man ni damay ñaan lu di gis parce que am na am na xam ne am na man loo xam ne bu ma ko defee mu tëx mu dëgër ki may ñaanal may gis si moom laa koy moom laay dem moo ko ah loo xam si affaire bi man di def naa lu ma xam mais ba dara sottiwul kon ah bëgg naa nga defar te sa ay sama ay maam lañ doon sama ay maam lañ doon sama ay mbokk lañ doon sama dere lañu doon parce que macha allah pël pël la mu ne pël ak séeréer lool moom mu laa rax Abdoulaye Faye mii ko xaal pulaar kon mii sim ñaag ni mu um fiewaan tam yax goot mi ñaagan ma ñu ñin kon ñin dañuy wax lu mu tuut tuut dina am xam-xam kon ñun macha allah xam-xam bi yaatu na bu ñu amee lu ñu tëx di dëgër parce que yenn yenn saa yi dañu am koo xam ne client boo xam ne day mbiram day dëgër këcc ñu def si ba sonn parce que comme lu ma la waxee fekkee cent pour cent yi mun naa sotti 5 pour cent yi mun na dëgër mais 5 pour cent yi dañu si def lu ndànk-ndànk ba affaire bi sotti bu mënta sotti ñu dem si sunu maam. ñu dem fi nga xam ne encore dañuy jël lool dolli ak li ñu yor si kàttu yàlla affaire yi baax mun na baax. affaire bi noonu la rek. ayca dégg ngeen waxtaan wu am solo wi sëñ Abdoulaye fay waxtaan tey mu nekkoon waxtaan woo xamante ni njariñ la nekkoon waxtaan woo xamante ni xéwal la mu doon jàllale li nga xamante ni moom mooy message bu am solo bi te jàll na. rawatina social yi nga xamante ni mi ngi koy jëf ci doomi aadama yi gis ngeen pañe yooyu na mu bëree 60 millions ci valeur et mu jël ko yii mu jënd ko ay pañe yii mu joxe ko ci daara yi yii mu dimbalee ko néew doole yaakaar naa lii rek la ab sëriñ war a def numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk ñu doon topp duñu li ma bañoon li ma bëggoon jàllale sax maa ngi jéglu dafa am koo xam ne euh, dafa yor sax comme sama numéro bi. mais buñ ko buñ ki ay juumee woo ko. woo ko man la ma kan la Ababacar Faye la mu ne waaw mu encaissé seen xaalis. waaw parce que numéro bi sama numéro ak numéro ko dafa nduru man dama numéro bi dama koy leeral 277 la 50 61. 277. 50 77 77 la. waaw 277 50 61 parce que kooku ñu may karaame rek. parce que numéro yi ñoo nuroo. yaakaar am na benn jour ju mun nga gis juum. mais am na ñoo xam ne noonu la ñuy def daal. dañuy wax dañuy tombé mu mu ne kookal na fay la mu nu fay la mu encaissé leen fekk du man. leer na ko waaw leer. waaw ah, ah, waaw danañ encaissé danañ encaissé am na koo xam ne nee na encaissé na ko 500000 xam 700000. parce que waaw. loolu la moom ah. loolu la état major jug parce que daf jàpp ni man la mais du man. man sama numéro leer na 77 la 277 50 61. képp ku la woo. ma ne bu muy hésité ak yooyu woo ko appel vidéo. Mhm. bu la jëlee nga xam ne moom bu la jëlee nga xam ne man man man mi sax boo ne boo xel ñaari man la wala ma woo leen appel vidéo di ma jël leen. nga gis sama kanam xam man la. kon loolu laa doon leeral wasalaam. mbokk yi doon topp duñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah